dal leen ak jàmm ci la yéen a kay xëy gën tey ci Rewmi FM yéen a kay daanaka lu jëm ci gàmm ak Tivaouane ni ki tey ci la ñu xëy del siwaat Rewmi ko tijjee ne gàmm ak Tivaouane ci boppam ak lu jëm ci tariqa Tijaan fi ñu jaar ca Maghreb ba ñëw ci réewu Sénégal muqaddam ak ambassadeur yu tariqa Tijaan jaar-jaar yi ñu def ak tey jële ki xam ne kii mooy Serigne Mbaye Sy Mansour mu nekk xalif général des Tidiane nag taxawaay bi mu am ci réewu Sénégal ak lu jëm ci tarixa Tidiane réew mi quotidien ci waawoon ci boom tey jële mooy célébré yoon jullit yu bëri bëri bëri ko ci réew yi fasanti ko ngir ñëw gàmm lu jëm ci ganek yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam sur ko Tidiane gàmm ak Tiwaawoon google ak juróom-ñaari xalifa yi nga xam ni ñoom ñoo mës a jiite tariqa Tidiane yéen kaay bi ñëwaat na ci beneen Serigne Mbaye Sy Mansour mi nekk ci jël bi ak taxawaay bi nga xam ne bi am na ko ci tariqa bi El Hadj Omar Tall yéen kaay bi moom ci boppam moo taxawal lu jëm ci tariqa Tidiane ci réewu Sénégal gàmmu googu la yéen kaay bi di quotidien lu ci mel ni almaktum ak alamil seen dëddu feeñal lool ci Tiwaawan ndax ñu bëri bëri ci taalibe yi seen xel dafa dem ci ñaari kilifa diine yu mag yooyu ak taxawaay bi xam ne bi doon nañ ko am ci gàmm ak Tiwaawan moo tax yéen kaay bi ne xabru yu ci mel ni xabru al amin ak xabru almaktum taalibe talibi dañ fay fees dal ngir di ziar ak di leen ñaanal vox populi ne gàmm ak Tiwaawan gi mooy téeméer ak juróom-benneel bi yoon ñu koy amal Tivaouane ci boom daanaka fi ñu toll nii fees na del ndax tali bi bayikoo nañu fu ne yenn ci ay yoo xam ne ñoom itam bëggoon nañu ko fekke waaye di njot ne bu ñu moyul duñu ko teewee mooy tali bi tijaan yi bayikoo ci douane bu Casamance yoon wekk bon gi bon taxaw yu bëri yi leen taxaw ci yoon wi tax na ba fi ñu toll nii ñu yaakaar ne faw kilifa yi wax ci ngir ñu mën a teewee gàmm ak Tivaouane Medina Baye moom itam doon na amal ak gàmmam ni i cabinet kañ yom fa kanamu taalibé yëpp moom ministre de l'intérieur ne président Macky Sall tey jii li la gën a dogu ci lépp loo xam ne jëm na ci yeesal kër kilifa diine yu tàddi ñu wéy di ko yeesal li yees ci mbirum xalifa Khalifa Ababacar Sall maire bu Ndakaaru mooy ni ki juróomi fan ci weeru décembre la war a taxaw ci kanam chambre d'accusation libération fi ñu toll Khalifa Sall mi ngi ci ay salita com enquête ne fi ñu toll Khalifa Sall bu mooy dana dem ci correctionnel ndax procureur ci boppam mu sàkkoon ñu renvoyé audience correctionnelle bu Khalifa Sall ak ñi nga ñoom la ñu baram tuuma ci jëm ci mbirum caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru lay observateur ni procureur moom jébbal ne li ngir mën a addu ci lu jëm ci mbirum Khalifa Sall opposition bi ñoom taxaw nañu temm ne réewu Sénégal duñu nangu benn yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk nguur gi di jël ak xët li nga xam mooy charte réewu Sénégal ak leen ciy def nu leen neex mu tax it Walf Quotidien opposition bu Sénégal la ne a dogg ne ñi xam ne ñoom ñoo bëgg a jël gëtti li nga xam ne moom mooy constitution bu réewum Sénégal ci jamono joojale moom MEDES di mouvement des entreprises du Sénégal ci seen njiit Mbagnick Diop ñoom ña nga doon nemmeeku aéroport international Blaise Diagne bu Diass bi ne bi juróom-ñaari fan ci weer décembre la ko war a màggal moom Mbagnick Diop ne jëm ci aéroport bi ni mucc na ayib mucc ayib goo xam ne gi mboolem ñi xam ne dañoo nekkee ci secteur privé ñoom itam war nañ cee gis seen bopp nemmeeku ko te bay ko xel bu baax a baax moom Mbagnick Diop président mouvement des entreprises Sénégal ak ñenn ci ay àndandoom ne aéroport bi ni mel ñoom ci seen bopp rafetlu nañ taxawal bi ko taxawal rek ci dool tamit te lu jëm ci ay marché yoo xam ne war nañ ko def ngir aéroport boobu lay gën a mucc ayib Mbagnick Diop ak àndandoom bu MEDES ne taxaw nañu ngir béy si seen wàcc ñeneen ñi taxaw ngir lépp loo xam ne jëm na ci jàngoro ji di sida ñu xeex ko nga xam ne ñi ñoom ñoo bokk ci kuréel gi xeex lépp lu jëm ci wàllu ci réewu Sénégal ni kiy dem bañ koy màggal ci place du souvenir yéni bi di la turbine ne daanaka fi ñu toll réewu Sénégal ñi am jàngoro sida léegi bëritul te li ko waral du leen lu may xeex nga xam ne bi ñi ngi koy xeex ñu fii ci réewu Sénégal mooy fii ak 35 bu ñu gisati kenn koo xam ne kii am na jàngoroy sida ban équipe l'équipe bu Sénégal di dajekee ci coupe du monde stade yéeni kay li léebour mooy ni ki ëllëg di ajuma la war a amal tirage au ngir xam dëgg-dëgg fanweer ak ñaari équipe yi qualifié ci coupe du monde yooyu li ñu war a amal ci Russie ñu xam kan ak kan ñooy dajekee yéeni kay bi ne léebour daal mooy gaynde Sénégal moom noppi nañu ngir képp koo xam ne kii boole a na ñu toll ak maître Augustin Senghor ki ànd ndoom ñoom ñëpp dem nañu ca Moscou ngir teewe tirage au sort bi ñu war a amal niki ëllëg